waaw parce que nee nañu moom say buñ ko takkee buñ ko takkee ba mu dëgër day doon doole te l'union fait la force donc yàlla def nag parcelle ñoom ñëpp ñu nekk ay frère nekk ay xarit donc nekk ay bande de copains yàlla def nag am ñu ci yokk tuuti rek waaw sama genre geeg ñeneen ak ñeneen waaw mooy li gars yi naan yokk cere dooli ñeex sant yàlla bu baax waaw di ñaan alors dama doon posé wu benn question ci Garga bi mooy cinquième année xaw ma quatrième année boo xam ne mu xaw a raar ci làmb ji di ne dina am benn différence bu muy def ak adversaire am bi nga xam ne compétir na. waaw donc euh, làmb moom mbër eh, mun naa wax ni compétition dafa baax ci mbër mais compétition boo xam ne tey ah li may wax rek. mbër day compétir xëy na Mama Lamine compétir na mais suñuy préparation combat préparé nañ benn xeetu préparation boo xam ne manque boobu noonu gars yi di sentir ñun duñ ko santir parce que on est des professionnels xam nañ bër bu bu gëjee bëre lan lay manqué ak lan lay soxla loolu noonu mu doon soxla yëpp ci durant préparation bi vraiment liggéey nañ ci liggéey yu am solo. tey ku xool garga mi tey boo ko xoolee xam ni boo ko xoolee day mel ni gëjul ci làmb te boo ko xoolee beneen côté bi mooy dafa namm ñëwaat ci làmb donc ñaari aspect yooyu boo ko boolee day indi compétition. léegi ki ñu doon xaar ñëw na Modou Xarañ Lo waxu mu taxaw waxu mu taxaw waxu mu taxaw Modou Xarañ Lo ñëw na taxawal taxawal rek taxawal rek Modou Lo na ñëw fekk si rakkam. di Garga 2 c'est l'arrivée du roi des arènes la roi des arènes Lac Rose la jóge daa tardé le roi des arènes a ngi noonu gis ngeen public gu Fadia gis ngeen public gu Parcelles Assainies niñ ko accueillir Ablaye xoolal Modou Lo ngi noonu xarañ Lo ngi noonu xarañ Lo ngi noonu roi des arènes est le roi des arènes borom ñaari galon yi nekk roi des arènes nekk borom ñaari galon le roi des arènes ñëw na soutenir rakam soutenir frère am di Garga waaw lii moom kontaan nañ si bu baax a baax moo doo ngi noonu ndeysaan Eh, man neke man neke man làmb ji neex na de xooleen xooleen gars yi Garga 2 xooleen si kaw étage yi le phénomène l'adversaire de Ama Baldé est le roi des arènes est le xarañ des Parcelles Assainies le xarañ de l'arène waaw lii rafet na sa rakk bu xewlee nga ñëw soutenir ko sa bu xewlee nga ñëw soutenir ko. Serena Serena mbokk yi gis ngeen léegi dañuy defar sàppe yi dañuy defar rang yi def tuus tuus bu jaar yoon avec le roi des arènes qui venu soutenir son frère Garga 2 léegi nag nañ def tuus bi nañ def tuus bi def ëpp def suñu def suñu point de presse mbër bi ñëpp ñibbi doy na neex na ba pare bu fi yemoon sax mu neex bu fi yemoon sax mu neex. booy ah booy nag waaw dañ defar dañ defar sàppe ñu def tuus bi mu naaj. ah waay jóge leen fii dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonent bi. Ah, leen ràppe yi defar leen rang bi. ay jë na sax. C'est le roi avec ses frères. Ah, ah waaw waaw bi mu ñëwee nag la waa parcelle yàq suñu open press. bi mu ñëwee waa parcelle yëpp yàq suñu open press. mais mais grand. Ah? mais grand kii dafa ñëw ngeen yàq suñu open press. déet open press mooy la. non yéen a ko yàq. dafa ñëw yen ñëpp ngeen màgg bu ñëw. non non fii fekk ñun ñun ci lañ bokk. ñun Garga 2 moo ñu ñor. non dafa ndànk rek dama ne. waaw dama ne laaj ñu ci Garga 2 ñu wax la ci. voilà. yow déggoo ma dégg naa li nga wax. non non kii dafa ñëw pour jàppale ko. comme ñëw na pour jàppale ko. il faut ñu ànd demee noonu. waaw d' accord naa parce que da ngeen ko yëg da ngeen ko sant. non xam nga wala ñun ay doomi parcelle lañ doomi fajaa kon 1 ba 26 mooy fajaa parcelle moo jur fajaa ñun fajaa lañ juddoo parcelle lañ juddoo ñëw fajaa. benn la. fi nekk di da ngeen koy da ngeen koy dund seen biir deret. ñun li ñu li ñu bëgg mooy. beneen roi des arènes ñëw muy garga 2. ñun loolu lañ soxla. woo nañ parcelle gépp